te doomu nit ki toog ci jalam bi solo ndam bés boobu nag yéen ñi ma topp dingeen toog ci fukki jal ak ñaar di àtte fukki giir ak ñaar yu bànni Israyil koo xam ni kii dëddu nga ngir sama tur ay kër ay doomi ndey yu góor walla yu jigéen ndey walla baay ay doom walla ay tool dinga ko jotaat téeméeri yoon ba noppi am dund gu dul jeex waaye ñu bari ci ñi jiitu ñooy mujj ñi mujj ñooy jiitu ji